bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaatan wasalaaman ala rasulihi almustafa wa alihi almustakmilina sharafa maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sunu borom di wax bismillahi irrahmani di sant yàlla tey julli di sëlmal ci ndawam li nga xam ne moom la tànn julli googu na law ba ci ay ñoñam ginnaaw loolu maa ngi nuyu euh, As-Samadiyya Media Group nuyoob islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad ak mboolem kilifa yi ak mboolem boroom xam-xam yi di teg nuyoo bi ci loxoy sëriñ Sàmb mu jot leen ñu ko ci waa daara ji ñu am mbégte del siwaat ak yéen ba tey ci li nekkoon te mooy teggiini koor bokk na ci teggiini koor yi xir ci jullik naafila alxirsu ala salaati tarawih farlu góorgóorlu ci jullik naafila yi ci guddi lu am njariñ la lu am tiyaaba la dañ cey jëlee njëkkalug sun borom ndax am na xadis boo xam ne buxaari yu ak muslim ñoo ko soloo ñu jëlee ko ci an abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min bi képp ku taxawee weeru koor mooy taxaw ko ci ay naafila guddi ngir gëm yàlla ak sàpp sàkku tiyaabo ñu jéggal ko bakkaaram ya jiitu ba tey am na beneen uh, xadis boo xam ne abu daawuda moo ko solo bi sanadin saxiix ñu jëlee ko ci an abi sarin radiallahu anhuma an abi sarin radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na inna rajula ida salla ma al imaami xataa yansarifa xusiba lahu qiyaamu laylatin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji bu jullee ak imaamam ba naafile jeex mu ànd ak imaam naafile ba naafile ga jeex dañ koy bindal yoolub ku taxawee guddi gépp moo tax kon euh, fekke naafile am na solo ànd ak imaam ba imaam jeex ba imaam jeexal kon képp ku taxawee jullit naafila ànd ak imaam ba imaam ngi jeexal julleem googu day am yoolub ku taxawee guddi gi waaye du tee boo defee loolu noppi boo ñëwee fii ak fajar loo mënaat ci naafila nga def koo ndax lu baax du doy yiw du doy bokk na ci tegginu uh, koor muy al ijtihaadu fi l xashri l su fukki fan yu mujj ñëwee ci koor nga gën a fagaru gën a farlu gën a góorgóorlu ci weer weer wi ci ci ci ci fukki fan yu mujj yooyu ndax am na xadis bu wér boo xam ne Buxaari soloo na ko ak euh, muslim ñu jële ko ci anha isa radiyallahu anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yu mu ci weeru koor su ma saani ñëw day takkaat laxasaayam dundal guddi gi yee waa këram kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam isaa daxala alxasra sadda mixsara wa axyaa layla wa ayxasa ahla ak tirmisi yu soloo na ci sanat boo xam ne saxiix la ñu jëlee ci Aysa radiyallahu anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama daana góorgóorlu far farlu ci fukki fan yi mujj ci weeru koor yoo xam daaw ko def e, ci yeneen e, fan yu fukki fan yi rek da ci daan takkaat laxasaayam xasaayam da ci daan gën a farlu bokk na ci teggeenu weeru koor yi ñu sopp ci weeru koor li ñuy wax al ixtikaaf ixtikaaf lu am solo la buxaari yu ak muslim solo nañ jëlee ci abdullahi ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def ixtikaaf ci fukki fan yu mujj ci weer koor moom itam lu am solo la sunna su am solo la mhm, muy fukki fan yi mujj ci weeru koor lañ ko daan def xam nga sax euh, cheikhul xadim radiallahu anhu moom na defoon ci jumaay daara xudus yi tey Euh, ca Touba euh, ci atum bay sasin def itikaaf ba ci la gisa woon rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ànd ak waa ahlu badrin mm, xew-xew boobu ci la yoonu géej gi juddo ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ñeen sa sa fukki at manqué na ñetti weer dañ la koy taxañal fal la xutbu samaan tey sëñ bi ne ko loolu baax na lool waaye nag ñii dar la ci laa bëgg a bokk loolu mu indi yoonu géej gi kon ixtikaaf lu am solo la ñu di ko def ci fukki fan yi mujj euh, ci weeru koor waaye bokk na ci teggin yooyu mm, nga xam ne teggin yu war la mooy ki woor na fegu ci lépp loo xam ni dafa dàqonte koor ndax koor jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi gën yi tax a jege yàlla ci la bokk muy loo xam dafa yar bakkan di tàmmal bakkan lu baax kon aji woor ji war na ci moom teggin la ci moom mu sàmm kooram googu ba man caa jariñoo ba man caa amee la tax ñuy woor te mooy ragal yàlla yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladi min qablikum laallakum tattaxoon ee eh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla farataal naa ci yéen koor ni ma ko farataaloon yeneen jiitu woon ndax yéen amaana ngeen ragal yàlla kon koor du bàyyi lekk ak naan rek mhm. waye bàyyi lépp lu yàlla araamal lépp lu yàlla tare mhm, ci la bokk kon koor du bàyyi lekk ak naan rek da woor ci caaxaan ak yu demee noonu bu nit wala nit ngàññee wala nit di xuloog yow soo ne ko inni saa'imun man damaa woor inni saa'imun man damaa woor loolu ñëw na ci xadisu Abu Hurayra mu jële ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bàyyiwul wax lu bon ak jëfe ko yàlla soxlaawul bàyyi lekkam bàyyi naanam man lam yada xawla zuuri wal amali bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa saraabuhu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na rubba saimin laysa lahu min siyaamihi ila al juux wal xatar bari waa na ku woor te kooram googu amu ca lu dul xiif ak mar mhm. kon ku na fegu ci lépp loo xam ne nii dafa dàqanteeg koor na fegu ci lépp loo xam ne dafa dàqanteeg koor kon tegginu koor yi am na ci loo xam ne dafa war ki aji woor ji sàmmanteeg moom am na ci loo xam nag dañ ko sopp nga xam ne day dolli jaam bi tiyaaba ak yool mhm. bokk na ci teggin yi nga xam ne dafa war li yàlla farataal ci yow ci jaamu yàlla wax yi ak jëf yi mm, nga sàlloo ko fonk uh, julli juróomi mhm. nga xam ne mooy ponk bi gën a feddali ko ginnaaw ñaari baatu seet yi mhm. aji woor ji farlu ci góorgóorlu ci taxawe ko ci ay arkaanam ak ay sartam joxe ko ànd ak mbooloo bi loolu yëpp ci ragal yàlla bokk ragal yàlla bi tax ñu yoonal koor bokk na ci teggin yooyu nga xam dafa war aji woor ji moytanu ko lépp lu yàlla xaraamal ci wax ak ci jëf mu sàmm làmmiñam ci wax lu amul ak jëw ak rambaaj saaga wax lu bon wax ju ñaaw fexe ba euh, ab gisam moom du xool lu araam noppam du déglu lu araam biiram bu dogee du ci lu araam tànkam du ci euh, dox jëm fu araam loxoom du ci laal lu araam du ci bind lu araam ndax bokkul ci xel ak xikma nit ki di sàkkoo euh, jege yàlla ci bàyyi lu lew lekk ak naan ba noppi rek ah bëgg ko tëdd ko tëdd jege ci bayi lu araam loolu moo tax yonent bi man lam yadax xawla suuri wala amala bihi fa laysa lillahi xaajatun xaajatun fi an yadaxa taamahu wa saraabahu kon aji wor ji dafa war ci moom mu sàmm làmmiñam ci ay caaxaan ak wax ju ñaaw mhm. bu mu lor kenn bu ko nit dee ŋàññi sax da ko xam ne ko man damaa wor loolu ñëw na ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la assiyaamu junnatun isaa kaana yawmu sawmi ahadikum falaa yarfus walaa yasab fa in saabahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni mraun saaimun xadis bi muttafaqun alayhi la kon loolu bokk na ci euh, teggin yooyu waaye bokk na ci teggini koor yooyu fexe ba di joxe ñam di joxe ndogg te mooy taftiru saaimin loolu lu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na man fattara saiman kaana lahu mislu ajrihi gayra annahu laa yanqusu min ajri saaimi shay'un képp ku jox ndog ku wooroon dangay am lu tollook yoolam te moom yoolam dara du ci wàññeeku xadis bi ahmad solo na ko ak tirmisi yu kon fexe ba di jox ndogu ñi woor loolu lu ci teggin yi la ci aada bi ñu sopp la e, ci weeru koor xadis bi day wane ngëneelu yaatu ngëneelu yàlla Mhm. képp ko jox mu ndago nga am yoolo koram te du wàcc ci du wàññi ci mboolam wàññi ci yoolam dara du wàññi ci yoolam dara boo demee ci sunanu abi daawuda boo demee ci sunanu abu daawuda yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa masa lekk bis ci kër saadu ibnu ubaada bam noppee ne ko aftara indakum saimoon wa akala taamukum abraar wa akala taamakumul abraar wa sallat aleykumul malaika ah ñi wooroon dogo nañ ci yéen ñu baax ñu lekk nañ seen ñam wi waaye malaaka yi ñu ngi leen di ñaanal mhm. kon joxe ndogu lu am solo la lu bari tiyaabo ci weeru koor wi mhm. moo xam tàndarma moo xam guuxu ndox la moo xam guuxu euh, soow la moo xam mburu la lu ci mën a doon rek tiyaaba ju rëy tiyaaba ju màgg mi ngi mhm. ba tey bokk na ci aadaab yooyu mooy ixraaju zakatul fitre génne murum koor mhm, génne murum koor buxaari yu ak muslim dëppoo nañ jële ci ibnu xamar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi faratal na murum koor di ko joxe ci weeru koor mhm, farada zakatul fitre min ramadana waaw anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam farada fitre min ramadana ala nnaasi saaxan min tamrin aw saaxan min saxiirin ala kulli xurrin aw abdin dakrin aw unsaa min al muslimin loolu moom tamit eh, ci eh, aadaab yi la bokk kon daal weeru koor mi ngi noonu weeru bari ngëneel la weer woo xam ne weeru yiw la fi ñu mën a jaaree ba am yiw dafa bari lool moo tax weeru promotion la kon war na ci bépp jullit mu profité ci mhm, ba euh, man a màng yool boobu man occasion wu ne occasion wu ci màng weer wi ci màng tiyaaba jooju ci màng ngëneel yooyu sun borom def ko ci yàlla nañu yàlla defal koor gu ñu nangu te nangu sunu mboolem topp yi sunu mboolem jaamu yàlla yépp te fulal ñu ko te defal ñu ko hadiya cheikhul xadim wa ma dalika ala llahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu